te nee na kat saa yoo bàyyi lañ la wax loo wax leneen rek kon nëbb am na ndax kon lañ la wax loo waxoo ko kon nag moo tax kon tabdil moom foo ko fekk rek kitmaan lay ëmbaale ca biir moo tax kon tablix mënta ñàkk ñëw foofu moo tax mu ne min ajli saa ngir lii tàdd fan xoo dana ko jiñ anir rusuli walis yonante yi xaqiqatu tablix dëgg-dëggi tablix foof xam déggal yaa rajulan yow waay wala moo tax tablix mënta ñàkk ñëw foofu kon benn nga ko su ma siyaadatun topp dolli bi xam diñ ci tey du fi xat jiñeef na ko bi sidxi ci sidxu ma amaanatin ànd ak amaana xaddu ubbitat bopp saxaleef na ko min duuni tabaliixin ci lu dul tabaliix yokk li ngeen waxloo te tey ko moom boo ko nattalee ne mën naa nekk mënta nekk waat sidxu amaana rek ñoo fa war a dikk waaye tabliix mu waru faa dikk kon foofu kon xusoos lay doon ndax yépp ñëwut li koy liaa ngir mu nekkam kasiban di aw fen min ajli saa ngir lii yedd fanxaa dana ko war a jiñ si duxul nuxu bi dëggaluk tànneef ya xam nga yokk foo ko fekk aw fen la loolu nag moo tax kon si duxu mënta ñàkk ñëw foofu wa kaw naxaa nekkam nga it xam dan dik tey xaraamul aji araam la chaane hoo joj ñaawal na ko min ajli saa ngir lii tàdd fanxaa dana ko war a jiñ al amaanatu amaana ndegam yokk ba moo ko tey boole ca tey gaa koy taxa araam te nag amaana moo war a fekk moo war a dàq ci lu araam moo tax foofu moo tax foofu amaana dana fa ñëw mënta ñàkk walay sa bil kitmaani waaye nag du ak nëbbu xataa yedd fa bay jiñ tabali xawam seenu jotal lil wax yi ñel wax yu ga xan an yàq xa walis muy tàbbi li ànd ko ngir naka moom ballaxa jot li na xataa zaada ba mu yokk far fa waxit na nga wéetal araba buur bi tanal kon nga am muraada namel yokk nag foo ko fekk moom ak nëbb du fa nekk ndax daa wax lañ ko waxloo ba yokk ca lu ca bokkut moo tax kon tablix du war a ñëw foofu ndax tablix moom kitmaan lay dàq te kitmaan amul foofu kon yaara ngoog mu jàll ci keneen su mata tabdilun topp ak wotee bi sax win ci njuumte du fi xa jiñeef na ko bi sidxi ci sidxu wat tablix ak tablix fii maa ci la nga xam ne waqaxa tàbbi na duuna amaanat ci lu amaana bàyyi lañ leen waxloo wax lu bokk te loola te njuumte waral ko kooku boo ko nattalee mënta am waaye bu fekkoon ne nattale nga ne mën naa am si doxal tablix la ñoo fay ñëw waaye amaana moom du fa dikk kon ba tey foofu xusoos la ndax yépp ñëw ñu mu wax la lu tax nag si doxu ak tablix war a dikk te amaana war a dikk mooy li kaw ni si ngir nekkam nga duriir yi xameef ko gis ban mu di aw ven li saa ngir lii yàdd fa xoo dana ko war a jiñ ci si doxun ak dëggal xarin guy aj yeey ak it wa ànnaxoo naka moom yekkoon dana nekk kitmaanan ji ak nëbb li saa ngir lii yàdd fa xoo dana ko war a jiñ ci ak tabliixu tabliix ut jàppal zaaka loolee wa za ak lii li tax si doxu war faa dikk moom mooy bàyyi leen la wax loo wax leneen foo ko fekk rek wax lu amut la kon nag si doxu ma war a dàq si loolu saa yoo bàyyee lañu la waxloo wax leneen rek dal ngay nëbbu ndax lañ la waxloo waxoo ko loolu moo tax tablix war a ñëw foofu wala yu saxam dan waaye nag du ak tey wali saako ngir loolu lam yëkkun nekkut te dafa xoo di ko jiñ si amaanatun amaana yaa man yow mi nga xam ne fattu na xellu na waaye dangaa wax ne nag tabjil bi bi soxawun la maanaam tey moom njuumte rek ko waral kooku nag kon du lu araam ndegam du lu araam nag kon amaan du fa dikk wala moo tax amaana ñëwut mu jàll ci keneen wa dafa xa jiñ na alkitmaan na bëgg am dan ci ak tey an xumoo walis ñoom amaanatun amaana faalam na nga xam wa tabliixu xumoo ak seenu jottali min duuni si daxim ci lu seenu dëggal alayhi moo yàlla na dollee nekk ci ñoom abadan faawu azga salaamay ni gën jaa selli teral ak jàmm minallaahi mu tukkee ci yàlla al ahadi may kenn nëbb te tey ko moom nee na fekkoon ne da nga koo nattale ci mu am jàppal ne kon faaw rek amaana war faa dikk tablix war a dikk waaye nag sidduxu moom du ñëw mu leeral lu tax amaana ak tablix war a dikk te sidduxu warta dikk mooy lii ànd na ngir naka moom lay sa bi tablixin bu ak jottali wasi fa gog ne la leef na ko di tàkk ngir loolu ba fa xoo ji ñam nga bixii ci tablix xori fa xameef na ko an xum jële ci ñoom xam nga nëpp moom boo ko defee rek jotli woo loolu moo tax nag kon faaw tablix ñëw foofu dàq si kitmaan boo ko mënul nekkam nga it xam nañ di ak tey xaraamul aji araam la zahara joj feeñ na li zaaka ngir loolu dafu xoo ji ñam nga yu daa def na ko gis amaana tan muy amaana nee na itam ndegam nëbb gi ci tay la boole ci tey ga moo koy tax araam lu araam nag amaana moo ko war a dàq si loolu moo tax faaw amaana ñëw foofu wala mu yëkk waaye nag nekkut alkitmaanu nëbb kiit ban di aw fen yàqaxoo dana tàbbi xataa yekkoon na bay nekk asiduxu sidduxu yedd fanxu di yiñ xan walis ko li am na foo ngir naka moom kooku lam yëkku nekkutoon mu xabaran di aji xibaar bi shayin ci dara fal taarif na nga xam ak tafsila teqale ga tas du far kon nga tuufu yaa u xëy yow sama su mbokk daa wax nëpp moom boo ko defee fen mënta am ndax fen moom balaa mën a am rek nga doon xibaar wax lu amut waaye ndegam waxoo dara dara da ngaa nëbb rek moom kon fen mënta am foofu loolu moo tax béréb boobu si dox mënu faa dikk kon ba tey foofu ku soos la yaari dikk kenn ki ñëwut bu jàll ci beneen su ma siyaadatum topp dolli bi saxewin ci njuumte duñu xat ji ñeef na ko bi sidduxi ci sidduxu duuna xëyri yi ci lu dul kull moom fi maa ca la nga xam ne sabate sax na yokk ca lañu ko jottali loo woon moom te njuumte waral ko su doon moom moom sidduxu dong dong mooy dikk yaari ci des kenn du ci ñëw mu leeralal la lu tax mooy li kaw lihaa ngiruk nekkam gis ban di aw fan lii saak ngir loolee tudd faxu def na ko jiñe bi si taxi rusulillaahi ci dëggamuk yonente yàlla yi fiimaa ci la nga xam ne yusmaaw def na ko dégg xam nga boo yokkee ci lañ la waxloo woon yokk boobee aw fen la loolu moo tax ci duxu moom mënta ñàkk ñëw foofu ba kaw naxaa nekkam nga nag lay sag bi xam din du ak tey manaxa tere na daf xal amaanati ji ñu amaana laxaa ñeel ko la waqaxa doon ci tàbbi woon na waaye xam nga da nga ne yokk bi tey ci njuumte dong la du ak tey bu doon ak tey moom amaana war a dikk waaye ndegam njuumte rek la kon nekk lu araam kon amaana du ñëw woowu wala sa def xaa déet ci ñam nga it yu daa deefi ko gis bi tabliix yi mu nekk tabliix li ànd xaa ngir naka moom lay sa bikit maa du ak nëbbu jaraagug daw na li ànd xaa ngir naka moom ballax jot li na maa la nga xam ne xat umure digaleefoon na ko ko wa saada te mu yokk sax ba nga defoo ci gannaawam faa na nga wattu al muqarrara la ñu saxal daa wax ni foofu nag te bu léegi dafa mën a ñëw ndax boo waxee leen waxloo ba yokk ci dara kon xam nga nëbboo nëbboo dara kon ndax da ngaa wax ba yokk ci sax lu ci bokkut kon nag foofu tablix mënu faa ñëw tablix moom kitmaan lay war a ñëw di ko dàq te far ak nëbb amul foofu ndax kooko daa xibaar ba dolli ci sax lu ci bokkut amma mu xaalafatu amrillahi ndaal jiyoonteeg ndigalul yàlla fii xëyri kiisi bin ci loolu fan min lisaani saahi mu bàyyi ko ci làmmeñu aji juum ja fa dafa xooxaa jiñe nañu ko bi amaanatin ci amaana faq dong min duuni tabliixin ci loolu tabliix wa sidxin ak sidx laa xalata amul benn njuumte ci loolu nee na nag xëtt ndigal boo xam ne ajuwul ci fen ni ki xëtt ndigal ci rey nit mbaa naan sàngara yu mel noonu kooku moom nee na kenn rek mooy ñëw dàq si ko te mooy amaana ndax tabliix moom du fa ñëw si duxu itam mënu faa ñëw mu wax lu tax li li am na kaw naxaa ngir naka nekkam nga xaraaman di aj araam xadra wow jot ñett li nañ ko looloo tax ra aw gis nañu li saak ngir loolee dafa xaa jiñam nga amaana fan muy amaana doon nga mu doon lu araam nee na moo tax dañuy jàpp ne kon amaana mënu faa ñàkk dikk laakin naxaa waaye moom nag lam yëkku nekkut gis bandi aw fen waa xen wi aji tab bi xataa yekkoon na bay nekk ak si duxu si duxu daa fi andi aj jiñ xanaa walis ko mu ne waaye nag du aw fen ndax kii moom xibaarul dara xëtti ndigal gi du ajuwul ci fen la ni ki rey nit mbaa naan sàngara yooyu kon nag loolu dangam xibaar amu ca kon fen amu fa moo tax si duxu du fa dikk wala mu yëkku nekkut it ak tabliixu tabliix yedd faxu di jiñ xan xaa walis ko is ngir annaxaa naka moom wala is annaxaa ba naka moom lay sabbi kit maanin du ak nabbu faa oon a ngeen wattu li ànnaxoo ngir naka moom lam yëkku nekkut ay dan ba tey mux firan di aji xibaar bi ay séen ci mu mu ci mbir mux fiyan mbir mu ngi aji nabbu ko aw mubihiran wala muy aji feeñal ko daa waxoon ca yooyu ne la ndegam du aw fen ci du ko du ko dikk mu ne la ba tey tabliix mënu faa ñëw ndax ak nëbb nekkul foofu ndax xat ndigal gi moom tey ci lu ajuwu ci làmmiñ la ni ki naan sàngara dañ ko waxee léegi mbaara yi lu mel noonu nag mënu su faa tudd fen mënu su faa tudd ak nëbb ba muy aajowoo ci duxu ba tabliix ji fa dikk foofu daal moom amaana kese moo fa mën a ñëw misaaluha misaala ma nag naxwu zina mooy lu mel ne njaaloo wan nazari ak xool li ajji na bi yët njëm ci jaambur bu jigéen wa kulluma ak lépp loo xam ne duri xameef na ko daaman xim mi boroomu tere xam rabbinaa jële ci sunu boroom subhanahu sorel naa ko lépp leelu ci moom ka xat li nafsi ni kiray bakkan doona xàq yu sharxi ci lu àq yoon xat ni kiray boo xam ne ajiwul ci laamiñ moom nee na li nga koy misaale njaaloo wala xool mun wërta xool ni ci xool jaamur bu jigéen wala rey bakkan yu mel noonu moom mooy xat ndigal bu ajuwul ci làmmeñ tummata kiit maanun topp nëbbu bisax win ànd ak njuumte in farada wéetoo na bi daf yi ci ak jiñam at tabliixu tabliix fii maa ci la nga xam ne xadd warada rot na nëbbu goo xam ne kooka teyu ko nag moom tabliix kese moo koy war a dàq si xam ne foofu ba tey xusoos la yaaree kenn du ci ñëw li kaw ni si ngir nekkam laysa bi tabliixin du ak jotal yaa xam boog dana tàbbi dafa xaxoo jiñ na ko at tabliixu tabliix an xum walis ñoom la waqaxa doonte tàbbi woon na xam nga nëbb moom boo ko defee rek jotliwoo wala moo tax nag kon bu nëbb amee rek faaw tabliix war a ñëw daal koy dàq wala moo tax tabliix ñëw foofu laakin na waaye moom nag lam yëkku nekkut kisiban di aw fen yàqaxu oo dana tàbbi xataa yekkoon bay nekk ak sidduxu sidduxu yedd faxu di jiñ an walis ko li ànd dal kitmaani ngir naka borom na bëgg kat laysa muxbiran du aji xibaar kama mada naka mu wéye woon min qabli saa ci njëkk lii mu karraran ngir mënu la ñu baamu boo nëbbee nag moom xam nga fen du mën a am ndax fen balaa mën a am nga wax te moom dangam nga nëbb rek waxoo dara dara kon fen amul foofu moo tax nag si duxu du ñëw foofu wax nañ ba tàyyi ne bu kooku nëbbee rek nga xam waxul dara dara moom fen mënta am te bu fen amul kon du aajowoo si duxu di dikk ba kaw nuxoo nekkam nga it min xayri xamdin di bàyyi koo ci lu tey xat mën a tere na daaf xal amaana ci jiñuk amaana kama waqax naka mu tàbbee woon xablu ci bu jëkk ndegam nëbb gi njuumte la kooku teyu ko kon nekkul lu araam loolu moo tax na kon foofu amaan du fa dikk ndax amaana lu araam lay dàq te foofu araam amu fi xonaa fii nag intaha la jeexe tab bi yënu naa sunu bëral maa lépp loo xam ne istalaasi ñeeloon na yetti melo yooyee mu fassalan mbir mu ñu tàggale kamaara wax naka ma ko nettalee man ka nga xam ne abaasa gëstu na xam-xam kon nag nee na li ñu waxoon ne mu am ci xosoos ak xumam ci diggante melo yooyu yetti melo yooyu foofu lay am leeral nañ ko bu baax a baax teqale bu matale matale faslu li ab dog la fil jaayis ci aji dagan ja fi xàq yim seen àq bu ñëw nag ci li nga xam ne jaayis la ci wàllu yonante yi amal lës yi daal la nga xam ne xadd jawwasoo daganal nañu ko fi xàq yim seen àq alayhim moo yàlla na doolee nekk ci ñoom azka salaamay rabbihim gën jaa seel li yaari musali seen boroom fakkuluma mooy lépp loo xam ne laayuf lii du àggale illaa naqsil maraati bi jëm ci wàññi daraje alxulaa yi diwee kawe min aradil bashari ci lépp luy gaar mbindeef kam maradin ni ki tawat di xiifatin ju di boroom ak woyof wa zahabin ak xiif wa xatashin ak mar wa faraxin ak mbég wa nasabin ak coono waka mulaqaatil aza ak niki taseeg lor wa safari ak tukki wal i'tinaay ak sonne bi risa ci ab añ wa ab añ rek waaye mooy lekk wal fikkari ak ay xalaat li nga xam ne moom nee na jaayis la ci ku yàlla yooni mooy lépp luy gaar doomi aadama te du tax ñu koy daw du tax itam mu wàññi dara jaam ñi muy gaar ni ci kese yi ba tey mën na naa dale yonante yi mel ni tawat joo xam ne du tax ñu koy daw soo ji woyof la wala mu ne xiif ak mar mbaa mbég ak naqar ak sonn ak noppalu ak peseeg lor wala tukkeeg ñàkk tukki wala yittewoo lu ñu xéwloo ci seen biir ak xalaat yépp rek daañu koy def ñoom ñu yàlla yónni ni ko ñi ci kese yi defee wakal ijaaret ak ni ki yooloo yooloo mooy liggéey ñu fay la defal kenn mu fay la wakal xitaaj ak ni ki xeex wal darbi ak dóor wal jarax ak jam bila ishkaal ci lu lënt wannaaw mi ak nelaw moo sinati ak ngëmeen waj jihaadin akuk farlu moo sili saalikin di aji àggale aji soobu ila rashaadi jëm ci jub maanaam ab yonante mën naa xeex mbaa mu xuloo mën naa jamante mën naa dóorante nga ne xeex xuloo sax war na yóbbaale yooyu ba tey ñi ci kese yi ni ñu nelawee ko yeewu ñoom itam noonu daañu nelaw ko yeewu ko gëmentu lim ci teg muy góorgóorlu gu leen di àggale ci jub mën naa doon góorgóorlu ci yokk seen ngóora ci lu baax ndax yàlla gën leen a gërëm mën naa doon it ijtihaad bi ñu wax seetlu la gën a baax ci seen xel ndax bu dee loo xam ne du wax yu mbirum seet rek la kon mën nañ caa def ijtihaad maanaam seet ca seen xel ak seen xalaat la nga xam ne moo ci gën a yell waaye nag loo xam ne moom yàllaa leen ko wax yu moom day leer nañ ñu daal di xam rek fañ cay aw waaye duñ ca mën a jëfandikoo nag xel ak xalaat duñ ca sañ a diisoonteeg kenn duñu ko fàtte itam mukk-mukk waxaaga saaliki ni nisiraanu shay in fàtte dara ma amara loolu digle wut bu xar ci borom aras ay ñu balli xooxu ci ñu jot li ko lil basari ñel mi néew yi ba tey mën nañoo fàtte loo xam ne bokkut ca lañ leen jottali loo lañu leen jottali loo moom duñ ko fàtte mukk mukk ndax yàlla moo leen dul bàyyi ñu fàtte ko waaye lu bokkute loolu nag moom mën naa am ñu fàtte ko laakin na ma waaye la nga xam ne yuf di dana àggale ilaa naq ci ruta bi jëm ci wàññi daraja ya mis lu junoonin keb ak ndof wa jusaamin ak ngaana yuj tanabu kon def na ko moytu wa barasin ak siti wa safahin ak deseedi wa samamin ak tëx wa daa i farjin ak jàngoro yi pay maanaam jàngoro yi sawukaay waxaman ak gumba wa bakkamin ak loo min kulima ci lépp loo xam ne taxaa foofoo dana ko soos dana ko soos mooy dana ko sib am nag su bakkan ba abadan faaw aw kulima wala lépp loo xam ne yóbbu ni dana songoongal wa yus minu te muy lompañal aljasada yaram wa loolu lépp moom tanexun aji terewu la fi xaq yim seen àq ay limu ci nam rek mustaxilun aji jomb la sàlla yàlla na dool tedd nga xaalihim ci ñoom aljalilu aji màgg ji musalliman mbir mu aji dool leen wóolu nee na lépp loo xam ne kum dal day wàññi sa daraja mel ne jàngoro yu sawukaay ni ki yoom wala bopp lu mel ne gumba ak loo ak lu mel ne ak ndof ak lu mel ne ngaana ak siti jàngoro yu doy waar yooyu ak lu mel ne deseet yi xel mu gàtt ak bi nga tuddee gumba ak lu tëx ci la bokk lépp loo xam ne rek moom kum dal mu doon sikk su réy ci yow mbaa mu nekk ak matadi gu wér-wér mbaa mu wàññi sa daraja rek moom du leen dal mukk mukk loola moom yàlla leen ci musal li annahum ngir naka ñoom xaasoo làq nañu kamaalal maarifati matu xam nga waa ismatan aku mucc min kul naqsin ci gépp manki faarifa na nga xam ndax neen yàlla leen may ñi am xam gu mat sëkk sëkk yàlla leen defal tam seeni jikko mu mat sëkk sëkk seen yaram sax day mat sëkk duñu am genn manqué kamaama daa naka mu wéye woon wakka sawaat gis mi ak niki ñuulug yaram wakkal xiyaakati ak niki ràbb ay sér wa sooyul fahmi ak ñaawug dégg wakka danaa ati fi xaalin ak niki suufeek ay jëf sanaxoo yooyu jëf nañ ko wakkat dibaaxati ak niki ak sibij ay dara sibij ay dar mooy loxonde ay dar ba sib ak nuroog moom faaw na ngeen wattu ab yoonante moom du def mu ku mécce mu yemaay mel ne loxundi ay dar wala ràbb ay sér wala xeeti mécce yu suufe yooyu ab yonent du ko mécce woo mukk mukk ba tey nag ñuul yaram xëy na wàññiwul dara waaye yonente yi mel na ne amu ci ku ñuuloon dégg gu ñaaw maanaam ñàkk mën a xam mbir yi mën koo dégg dégg gu baax ma xaw mel ne desee di ba tey ba tey loolu du dal ab yonente yaa rabbana yow sunu boroom yaa man yow mi nga xam ne faddalahum gënal na leen xale naa ci nun ihdina yàlla nga nu jubale bihim ci ñoom xëpp yàlla nga may amaleen mébét bihim ci ñoom la naa ñeel nu ba tey yàlla yow mi nga xam ne yaa def yonante yi ñu gën nu féetu nu kaw yàlla nga nu may ak gindiku nu gindikoo ci ñoom may nu li ñu bëgg itam ci seen daraja bisaa ci lii nag yu raddu la dee fi delloo maa la nga xam ne iddaxaaxu woote na ko almufritoona way ëppal ña li shiddati tansihi ngir taruk sellal wal mu faritoona ak way yéesal ña ne pas-pas bi nu wax ci yonante yi te mooy gannaaw bañ doonee ay mbindeef ne mbindeef yi yàlla kat moo leen di sorilal lépp luy xeetu manki ak lépp luy wàññi seen daraja waaye nag lu bokkut ak loolu rek nga xam ne du manki du wàññi daraja du tax kenn di leen daw rek ni muy dale nit ci kese yi mën na leen koo dale pas-pas boobu nag nee na mooy bi digg doomu ndax daa am ñoo xam ne dañoo yéesala yéesal lool may waxal yoonante yi loo xam ne nitu kese sax seexlu na ko rawante na ku yàlla yónni amit ñoo xam ne dañoo ëppal ëppal ba jox ab yonante darajay yàlla li ànd naa ngir naka la nga xam ne iddaha woote na ko ak nasara nasaraan ya fi rusuli ci yonante yi li shiddati tansihi ngir taruk sellal ifraatun ak ëppal la yaxullu kook dana wàcc mbaa yaxillu xadd saamoo wax nañu li hum xihim ngir seenu ndof wa jahlihim ak ngir seenu réer ne xiisa xiisa ilaahun yàlla la taalisum judi aj ñetteel tabban yéem naa toskare wala tabban toskare lahum ñeel na leen day misaal ñenn ñi ni ñu ëppale ba teg yonante yi foo xam ne bérébu yàlla daraje yàlla niki nasaraan yi dañuy jàpp xiisaa yàlla mbaa ñu naa doomu yàlla bu ñu waxee ñuy tudd ñetti yàlla naa baay beeg doom jeeg xel mu sell mi min ab lisaa ngir lii radda delloo na maanaam tontu na alayhim ci ñoom al jalilu aji màgg ji bi mal masihu ci mal masihu iqra jàng ko ilaa illaa rasulun ba ci illaa rasulun loolu moo tax nee na sunu boroom jàjj leen ci alxuraan leeral leen bu baax a baax xiisaa lim doon mooy rekk di ndawul yàlla ñu yàlla yónni woon yeneeni ndaw moo tax sunu boroom ne leen mal masiixu bunu maryama illaa rasulun xad xalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaana yakulaani taam yena xiisa yonante la rekk ni yonante yooyu woon ndeyam doon ku baax a baax ku dëggal a dëggal waaye nag moom ndeyam kenn du ci yàlla la cay tekkal moo di daanañu lekk ak naan lay topp ci lekk ak naan it daanañ ko def loolu nag mbirum bindeef la waaye du mbirum yàlla waradda delloo na moom yàlla ay ban ba tey maa la nga xam ne iddaa woote woon na ko man ña nga xam ne manao tere woon nañu kaw na rasulin nekkul ab yonante basharan di mbindeef maanaam di doomi aadama id yaqawu ba dana tàbbi xaala wax na moom yàlla lahum ñeel leen ne leen ne wa ma ja'alnahum defu nu leen jasadan ñi ay yaram jasadan daay maanaam aji saadan laa yakuluuna nga xam duñ lekk ñam taxaamin ci ñam li na nga méngoo assamada yàlla muy jubi ci aajo li lamar la ci wëliya ba tey nee na alquran day faral di nett bi buñ masaa yónni ab yonante muy doomi aadama la ko nit ñuy wax dañ ko wax ne ko yow daal nit doon nga ni nun bu yàlla doon yónni du yónni nit ni nun da yónni ci nun malaaka mbaa boog yeneen xeet su borom ni leen nit rekk lañ mën a yónni ñu mën a jàkkaarloog moom muy wax ñuy xam mën koo dékku dégg itam ay waxam mën koo topp bu ñu yónni woon malaaka it faaw rek dañu koy soppi ba mu amee melow nit ndax ñu mën koo dékku mën a dégg te su boobaa it faaw ñu ne rek kii moom nit la ni nun waaye du malaaka moo tax mu ne suñu borom da leen tontu ne leen ay doomi aadama rek laa daa yónni yoo xam ne dañuy lekk ka naan ni nga xam ne moom ngeen di lekkee ka naan te ab yonante bu dikkoon amee melaw malaaka du lekk du naan du takk soxna du def ni nit ñi def ci kaw suuf kon doo su ko mën a roy waaye ab yonante moom na mu gën a mate mooy na mu gën a wàcce boppam ba mel ni nit ñi ci zahir dañ xam ne moom ñii dañ ko yebal rek ngir ñoroom ci moom warul da na nga delloo ay bon ba tey maa la nga xam ne iddaxa woote na ko man ña nga xam ne farratoo sàggan nañu fi xaqil axyaar yi ci aqi tànneef ya moo yoonante ya axadaaka yal na la jéggi al xalatu njuumte mooy rek yal na la njuumte sori man ña nga xam ne wasafoohumoo melal nañu leen pexu yoo bin ci ay sikk wa bi naqsin ak ci ak manki li ajji li kawnihim ngir seenu nekk lam yaarifoo xamuñu kal bu la daa yi ki way gàtt ña xel jaahilil mufassiriina ña di way réeri tafsirkati alquran wa sufahaayi ak way deseediya kaadibin mu arrixiina ña di fenkati way gëstuñi histoire ibu ngir axal bi jàpp nañu zawahiril kitaabi zahiri téere ba bi xëyri ta'wiilin ci lu ñu ta'wiil ila sawaabi jëm ci jub ga léemu weesu mooy misaalum ñi nga xam ne dañuy yëkkate yëkkate ab yonante ba jox ko daraja yàlla mu ne nag ba tey bul ànd ci ñi nga xam ne dañuy woyofal yonante yi ba duñu leen àggale ci daraja jëñu leen war a àggale xanaa kay di leen waxal xeeti sikk ak xeeti manque yoo xam ne ñi ci kese yi sax daañu ca faral la mucc mbaa ñu koy seexlu loolu nag dal na tafsir ci alquran yu bare bari ndax dañuy dégg alquran nam waxee ca zahir te duñ xam taawil ga maanaam nañ ko war a jàppe ci biir dañ ko la xamee dal koy jàppe rek nam waxe ci bitti wala boog ñu topp li borom xam-xam yi yahuut ak nasaraan di wax rek ci seeni téere yi ñu daal di koy feesale seen téere tafsir yooyu yëpp dana di andi teg yonante yi fu suufee suufe foo xam ne yàlla ëppaleen na leen ko ba tey it am nañu gàtt xel ñoo xam ne dañu ne dañuy xeeñtu histoire te duñ xam la wér ak la wérut di nett li rek di wéy mën naa tax nga gis ci seeni wax ñu waxal ci yonante yi loo xam ne daal jomb na ci ku yàlla yónni wa fi nizaami cheikh yi nekk na ci wayu sëriñ ba dil mahaali kay boroomi kawe muhammadin te mooy muhammad naabigatil aglaali mi aji tépp ay bënni xam-xam am na yax yi bind muhammada ko defee ñu def ko maalaayen sarif ndax way teg ci nag annaabigatil aglaali daal di taara annaabiga waxad yajuru baraana ba dana ñoddee zaahirul kitaabi saahiras téere ba lil kufri jëm ci ak weddi wal bidaahi ak ay bidaa wala xitaabi ak yaraange ni am na ku ñu wax muhammad